mbokku site internet Adouna Buzz TV dal leen ak jàmm ci seen tënkum xibaar dañ koy door rek wàllum tàggat yaram ginnaaw Sénégal ndam bu rëy bi nga xamante ne am na ko niki tey jii ci ñaar fukki fan nak ñeent ci weeru mars 2023 ci kaw Mozambique ginnaaw bi mu ko daane juróomi bal ci benn foofu ca stade Abdoulaye Wade ba nekk ca jam Diamniadio mbir mu doy waar nag moo fa daal di xew ginnaaw bañ ne ñenn ci ay ndaw Pastef rek dañoo demoon supporter ji waaye nag ci seen bando li nga xamante ne moom dictateur mu mel ni rek moom bu lee mbir nag naqar yi ki nga xamante ne moom mooy njiital réew mi ba tax police ba nag ba max ba tasee ñoom ñëpp rek la daal di ramasser leen jamono ji nag ñu ngi ci sous contrôle judiciaire ñu xusandi ci yeneen ni jotay xibaar fii ak suba incha allah